mbokki téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyoo jullit ak mbokk jullitam ni ñu ko baaxoo defee talaata ji nekk ci waxtu wi e seen télévision LCS mu la chaîne sénégalaise ñoo ngi ciy teg e, ziar di jiital nag nuyo bi ak ziar bi e, Maolana Cheikh Sidil Mukhtar Mbacké mi nga xam ni mooy xaadim rasul ci kaw suuf di ñaan yàlla mu yàggal taxawaayam ànd ak wér te eggaleel ko mébétam yi mébét ci lislaam yëpp noonu la ñu nuyoo képp ki wax ashhadu an la ilaha illallah noonu la ñu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jëfandikoo rek waxu Serigne Touba bi ngeen ngeen wax mu waxoon ni fala tuaadu man raaytumu faa u yuxriju la ilaha illallah ni ko sunu borom di waxe innamal muminuna ixwa ba al aya loolu di ca teg rek euh, dellusiwaat bu baax a baax siyaare kilifa diine yépp ci réew mi di leen ñaanal ñaan googu ñu ñaanal seen mbokk di Maolana Cheikh Sidil Muxtaar euh, mi nga xam ni mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, di nuyu bu baax a baax nag El Hadj Maam Thierno Biraye Mbacké bu Serigne Cheikh Awa Balla ca Daaru naan du nuyu njabootam di nuyu njabootu borom daaru gépp tàmbale ca toogee jataayu Maam Thierno Biraye mat ko sëkk yàlla na ko fi yàlla yàggal moom muy Serigne Cheikh Khady Diouf mbakke di nuyu képp koo xam ni yaa ngi ci eh, ren kër Cheikhul Khadim waaye kuy wax an allah asadu laa ilaaha illallah Euh, di beral itam euh, nuyoo ak siyaar jëmm ju baax joo xam ni ñu ngi eh, dëgmal moom it euh, bis boo xam ni mu ngi koy taxawee muy alaaji seexu mi mbàkki falilu dañ ci ñëw léegi ci kanam noonu rek la gis nga bis yu baax yi ñuy def di ko defal jàmbaari lislaam yi ni ko waxkat ba waxe woon muy fàttaliku ju baax te mu dikk ci alxuraan lu bari sunu borom di wax yonent bi fàttaliku diw ci téere bi loolu sax tax kenn waax ni inde dikri saaliina tanzilu rahma Euh, xam ngeen ni ci kàttanu yàlla le 28 la ñuy fàttalikuwaat ziaraat bu baax a baax euh, màggaluk Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke fële ci Darul Manaan ñu ànd ak dawaayir yëpp di ko waajal fii ci Ndakaaru nag ci njiital Serigne Lamine Mbacke bu Serigne Cheikh Awa Balla di Mamadou Lamine Bara euh, di ko ziar di ziar daayir yëpp yi nga xam ni ñoo aju ci kër gi di ci nuyu itam Cheikh Awa Balla yëpp Cheikh Awa Balla Dia Cheikh Awa Balla Fall Cheikh Awa Balla yëpp di leen ziar daayir Awa Balla eh, di nuyu itam eh, Mbaye Niang mi nga xam mooy Serigne Cheikh Mbaye bu El Hadj Mame Thierno Birahim waaye daan ci doy saat incha allah ci kanam ci kàttanu yàlla eh, du nuyu bu baax foofu sëriñ abu Mbacké Falilou mi nga xam ni moo jiite kër Serigne Fallou te itam am kenn ci moom ci njabootu Cheikh Modou Fadal dëgmal bis bu mag moom it di El Hadj Cheikh mi Mbacké Falilou fii ci foire bi ci kàttanu yàlla moom tamit le gis ngeen bis yooyu incha allah yu am solo la euh, moom it euh, duppee bis ba Serigne Abdoulahi Mbacke ci loolu sax teewal nañu kenn koo xam ne ci njabootu Serigne Abdoulahi Mbacke ci la bokk ci kër googu la bàyyi ko euh, teew ngir waxtaan ci Serigne bi ak am solo bis bi ak ki ñu ko tuddee diggante Serigne Fallou ak Serigne Abdoulahi Mbacke muy Serigne Cheikhouna Lo di suma xarit di boroom xam-xam di kilifa di ku baax koo xam ni incha allah kenn dootu ko présenté ci yoonu murit waaye ci lislaam bi yëpp waaye ci rawatina nag euh, Sénégal gi mu fekk baax muy taxaw taxawaay bu rafet di ab jot laa kon di di di di di di bàyyi si itam euh, incha allah ci kàttanu yàlla Serigne Cheikhouna Lo buñ ko joxe kàddu gi loolu dina gën a leer ci mbooloo mi. Euh, nuy siyaare bu baax euh, Serigne Cheikh Mbacke Abdoulahi mi nga xam ni moo toogee jataayu Serigne Abdou Borom dër bi euh, te itam mate ku sëkk itam di nuyu njabootu Serigne Abdoulahi gépp waaye bi ma duggee kër Serigne Fallou damay demaat nuyu Baye Cheikh Awa Balla Cheikh Awa Balla Mbacke Falilou waaye Serigne Aliou Falilou mi nga xam ni itam mooy setu borom Darou Mouhty waaye dellu itam nag nuyu sama xarit naa Cheikhouna Mbacke Cheikhouna Falilou di ko yàlla baaxal doomi Serigne Fallou nuyu soxna maam Faty yëpp maam Faty xaar yàlla maam Faty usine eh, sëriñ Bamba Ndiaye di doomam ñu ngi siyaare ñun ñëpp di siyaare njabootu Alaaji Falilu Mbàkke gépp eh, di deex rek sëriñ Seexuna Lo ci kàttanu yàlla mu nuyoo nag ñu door a dugg ci waxtaan wi nga xam ni eh, moo waral tey incha allah xam ngeen ni ñu ñu invité ko parce que ñu ngi woon ci Masalikul Jinaan ci seen émission ci kanam tuuti da ngeen mën a jokkoo ak ñun ci kàttanu yàlla ci 620 88 628 71 71 dañ ci kàttanu yàlla 88 628 71 71 pour ñu bëgg a jokkoo ak seen mbokk Serigne Cheikh Nalo wala seen mbokk euh, ab dongo Oustaz Cheikh Awa Balla Seck Euh, ci kàttanu yàlla duñ joxe sëñ Cheikhouna lu mu dugg nuyoo ak téléspectateurs yi ñu door a dellusiwaat ci am solo bis bi nag ak itam euh, li tax ñu arrêté tey euh, leçon Massalikul Jinaan dugg ci waxtaanee jàmbaar jooju nga xam ne ñu ngi dëgmal bisam mu muy sëñ Fali lu ñu tuddee ko sëñ Abdoulaye ak borom daal ma naan sama turandoo Serigne Cheikh Balla itam ñu koy waajal le 28 Serigne Cheikhouna asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh nahmadullah wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ نجلي نيو دي نيو دي زيار الشيخ سيد المختار دي نيان ديال مياقل كو تأند أكوير آمين دي نيو سيدنا الشيخ أبو البركة الشيخ الفاضل الخليفة دي نيو دي جاتلي تم نيو سيدنا الشيخ أحمد مكة الشيخ عبد الله نك خليفة أك نجابوتو الشيخ عبد الله يجيب Euh, di leen ndokkeel di leen balaax di leen balaax mhm. ci xew-xew yi jàll ak yi ñëw mhm. di am mbégte lool ci teew fi mhm. ngir teewal fi ñoo xam ne dañoo am ngant waaye buñ fi teewoon ci lay gën a lépp macha allah waaye ñu fas yéene euh, ñëw rek ngir fàttalente ci jikkoy gaa yu baax yooyu nga xam ne si ñoom la ñuy fàttaliku tey. mel ni Cheikh Abdoulahi. Mm-hmm. Euh, Cheikh Amadou Fadil. Mm-hmm. ak euh, kilifa gu baax boobu muy Cheikh Awa mm-hmm. euh, loolu yëpp di feeñ ci jataay kon bu ñu duggee ci biir dina gën a feeñ incha allah. Mhm. waaw jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna Lo li ma ko waxee woon euh, ku yàlla baax yi di boroom xam-xam muy sunu gan tey ci kàttanu yàlla xam naa ni ku seetaan ci jàll daaw journée culturelle Serigne Abdoulahi Mbacke bi dootoo ko fàtte mu ko déglu euh, muy ku yàlla baaxale di di borom xam-xam xam ngeen ni incha allahu bis yi yëpp ñu ngi koy taxawal ngir kenn rek seexul Khadim waaye ngir l'islam rek loolu rek mooy li nga xam ni moo waral bis yi yëpp di am. waaye liñ ciy wut ci bis yi li muy bari boo xam ne Serigne Souhaïbou Mbacké la le 25 moom ci bii di Cheikh Modou Fadal mi nga xam ne itam soppe bi ñëpp la euh, boroom na am mu am euh, di ko xam ni ñëpp ko bëgg euh, moom tamit bari nañu koy tudd sax te xamuñu ko gisuñu ko dañoo judd rek dégg Serigne fàllu sopp ko moom it doomam ju baax jooju Cheikh mi taxawalal ko Serigne Cheikh mi Mbacké taxawalal ko bis boo xam ne bii Eh, daana ci euh, ah, ki xalifab Serigne Fallou daana ci ñëw ba bi nga xamee ni muy Serigne Bara Mbacké Alaaji Bara mu baax ma yàlla na yàlla yokk leeram bi nga xamee ni dem na ba eh, yàlla dogal mu mu nekk Serigne Touba moom Serigne Bara lu itam euh, bis yooyu Euh, jóg na sax nar cee ñëw sëñ Saxu mi ko ñaan ni ko sa tànk diis na te mënoo nga teew ci lépp bu dikk ba padduwaa mu mu mu mu ñaanal ko ñaanal tali bi wëlbatikuwaat bis bi nag itam muy def at mu jot mu tuddee ko kenn ci njabootu Serigne Touba yaakaar naa ni ren ñu ngi ko duppee sëñ Abdoulaye borom dëgg sëñ Abdoulaye nag ñu bari eh, xëy na dégg nañ ko waaye itam umpule nañ ko mm, waaye moo doon. mooy borom Thiéyène mën naa ko wax mooy borom 1907 dana gën a leer ci sëñ Cheikhouna Lo euh, ci kàttanu yàlla muy borom Daaru Rahman euh, muy sëñ Abdoulahi euh, moomu di Abdoulahi mu Serigne Touba ak ya aju ci lu waxtu wi may pour ñu njëkkantee waxtu yi waxoon naa leen daañu am li ngeen ñu mën a am ci 628 88 628 71 71 moom ngeen di jàkkaarloo pour jokkoo ak seen mbokk soxna Cheikh Nalo ci Serigne Fallou ci Abdoulaye waaye itam bu leen fàtte ni incha allah ci kàttanu yàlla El Hadj Mame Thierno Biraye Mbacke mu Serigne Cheikh Awa Balla ñu ngi waaj bu baax a baax a baax eh, le 28. ñoom dañuy jóge 27 màggalu Sëñ Abdou Khadre rek continuer 28 Daaru Marnaan at mu jot noonu lay demee day dem Sëñ Abdou Khadre di altine talaata Daarul ma naan Euh, gis nga ko te kër gi di benn njaboot gi di benn loolu moo waral sax ñu ñu toppale bis bële loolu yëpp ci taalibi ak sëriñ maam Thierno ak bëggam lu baax ak yaatalam waaye mu ngi koy woo bokki taalibi ak jullit yëpp incha allah daan ko gën a yaatal sëriñ nan ngay tàbbee ci borom bis bi di ñu ko tuddee di Cheikh Ahmadou Fadal ak ki ko duppee nga xam ne jëmmam moo tax nga teew fi incha allah. Euh, jërëjëf sëriñ Cheikh euh, ñoom ñaar damay faral di wax. te jële ko ci làmmiñu Cheikh Ahmadou Mbacké boo tuddee ñaari. Cheikh Ahmadou mooy sëñ Cheikh. sëñ Cheikh Dar Rahman waaw loolu lañ ko gën a miine. waaw sëñ Cheikh Dar Rahman. Mhm. Euh, dafay wax ne boo tuddee kenn ci ñoom. Hmm. danaan la ñaari jëmm la wala ñaari tur la yu yor jenn jëmm. muy Serigne Fallou Serigne Abdoulaye mhm. te boo tuddoon Cheikh Serigne Fallou ak Cheikh Mamadou Moustapha it loolu la la cay tegal. wallaay ndeysaan. ndax. kenn ku nekk ci ñoom mm-hmm. rek koo ci gis mooy ka ca des mm-hmm. euh, Chamoun Fadil dafa doon koo xam ne mm-hmm. dafa bari ay ngëneel macha allah ndax bis bi mu tombeel Sëriñ Tuubaa di ko firndeel ci biir xasid ak Mafatihul Bichri boo demee ba ca biir ما نقول تنكي يوم رجب يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقا الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تم به الأرزاق نهوت عني ما به النفاق عني محا فجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق ba ca mujj mu ne bi kaxtaway naa maa lahu nashtaaxu salla alayka al akramul hmm. kon kooku koo xam ne Serigne Touba nee na li mu doon guddeen ak di ko bëgg ak di ko nam yépp ci moom la ko amee kon loolu la hmm. boo xam ne euh, ñu koy fekk lu bari sëkk loola nag hmm. ba mu amee mu ñëw waaye ba barke ba la muy bari bari bari ak euh, jagle ga ak sañ-sañ ba fële la ko teg ni mu ko daan waxe buñ ne am na xam-xam lool mu ne waaw waaye xaw a dee muy mm-hmm. indi rek benn firinde ci ak am xam-xamam moom Serigne Fallou moom Serigne Fallou mm-hmm. danañ ci tuuti sax waaye nag seede rek lañ ciy doon mm-hmm. suñu benn sëriñ daara bu ñu daan wax sëriñ Talla Mbaye yaaram nee na bi muy jàng jàng tuuti naxu mm. yàlla na ko yàlla yërëm moom euh, nee na dafa ñëw bind Serigne Fallou benn leetar bind ca biir ne aktubu ilayka haadihi risalati maas ko ci suuf jox ko sëñ fàllu sëñ fàllu jàng ko ñu ñu ngi sëgg ci suuf bi mu jàngee baag si foofu daal di fugg boppam nee na ma siggi mu ne ma loo bind fii nee na ma daal di nuyu xeet nee na fas yéene werante hmm. mu ne ma loo def fii ma ne ko risalati mu ne ma déedéet risalata nga waroon a def ma ne ko ah risaalatu lu de mu ne ma loo ko jàppe mbaadu mudaaf ak mudaaf ilayhi hmm. nee na ma ne ko la hmm. mu ne ma déedéet <laughs> wallaay wa in ataaka ismun muarrafun bi al hmm. ba'dal ishaarati faqul fiihi badal andi beneen bayit ne ko fanaatun aw badal fanaatun aw badal nee na ma daal ne waat yuub ba suuf nee na ba mu fa jógee boobu Serigne Cheikh Sey bu Daaru Xudoos moo ko doon jàngal. Mhm. nee na ba mu fa jógee ma delluwaat ci moom bi mu ñëwee nee na ma wax ko nettali ko sëñ Cheikh Sey. Mhm. nee na da ko fekk mu woon waaye nee na dafa jóg toog. ne ko sëñ Fallou la wax lii nee na ma ne ko waaw nee na mu ne ma moo fi sut ci àddina de. nee na ma ne ko lu tax nee na mu ne ko damaa xam ne li nekk ci kawam ci lijjanti àddina. Mhm. bis bu set la mu ci war a lijjanti daanaka la koy xaar suba mooy ay ëpp. wóor na ma ne xoolu fi téere ba def loolu ci fanweeri at yi ñu génn kon bu la waxee loolu rek kon Sëriñ Fàllu moo fi sut ci xam-xam loolu di benn ci tegtal tegtal ci ne mhm. Sëriñ Fàllu boroom xam-xam loolu mhm. beneen ba ca desit ak taalibeem mhm. di ak muriteem doon loo xam ne kenn du ko nattale ndaxte jaayante ga nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba waxoon ne nañ ko jaayante ba mu leen woowee wax leen ne leen du ma bàyyi du ma nijaay du ma mag wala du ma mbokkum kenn li fi nekk uxuwa bi uxuwa islaamiya lay doon wa diiniya kon ku ci bëgg na nga def loola moom da ko firndeel daal di wax ne biatu bu nu watiya bil irada lakum li kay bi xarxil aada wa baadama staraytumuha min ni ahdaytuha lakum bi xayri man ni juréel yi ñuy tudd di ma la tudd def naa ko mu doon addiye ci yow soo ko jëlee ba noppi it nag njëgg boo ma ko joxee maa moom joxaat naa la ko addiye <laughs> eh, ci mujj gi doon na wax ne eh, xartu aada ga ma ca eh, sax su doon léegi damay bàyyi rek mu defal ma waaye loolu yëpp waxin la ak cantam waaye eh, amul dara luñ cay rëccu wala amul dara luñ cay xebat mm-hmm. kon ku mel noonu mm-hmm. aajo nañu fàttali ko eh, la ca topp it mooy Cheikh Mouhamadou Fadil ak nitéem ak eh, xam àddina ak xam jamono mm-hmm. ndax yàlla bu bëggee cib jaam aw yiw daf koy xamal diine diine nag mooy ci la lépp di nekk kon bu ñu toogee ba léegi ñu bëgg koo ber naan kilifa yi diine kilifa aada. waaye ñoom xam nañ diine bañ xamee diine ci lañ xamaale aada ci lañ xamaale ci lañ xamaale lépp lépp ah, kon foofu ci Cheikh Mamadou Fadil mhm. defe naa ne dinañ ci waaw dina mën a ki waaw Serigne Cheikh kon ba ci mhm. kanam ñu dugg ci mhm. waaw kay euh, Serigne Cheikhouna Lo euh, loolu lu am solo la Eh, waxoon naa ni soo jëlee kàddu gi ci kàttanu yàlla euh, euh, ñëpp danañ xam ni eh, baleex nga fasaxa nga ci kàttanu yàlla wante euh, xam nga ni dafa am benn waykat baadu shu'ara il murid yi dafa wax ni moom Cheikh Ahmad Fadal fa man xaasuhu bi xidamin aw bi waa bilin ñu ne amu ne fa suuf safa in badin yauddu zulama nee képp koo xam ne tëkkale nga ko nattale nga ko xiyaas nga ko si neen tolloon ak géej wala waame li muy bari bari njariñ ba tudd ko ne xay na suñ fàllu nuroo naa moom wala tolloo ak moom nee na kooku ku manqué la nee na nañ ko lim sax ca tooñkat yi ndax kooku may wax daal bi xëy na naamin lay si yujibuhu mawlaaw nee na lu dul waaw rek yàlla du ko tontu loolu nag muy na am maam jooju. bi xëy na am lay suy jibu mawlaaw jooju duggu mala yu nilu arima mun da koy jox loo xam ni kenn am ko loolu ay mbubb la moo xam ni bu ko ñëpp amoon solo ko ñëpp wante. Eh, dañ ko xool mu ne lii na am loola am lii bu mu am du am ñu di ko xool guddi bëccëg suba ngoon taayiran wa baatinan lu mu ne na am mu am lu mu ne du am loolu du am bu mujj yàgg ñu ànd ni ko kat kii mooy borom na am mu am waaye moroom mooy borom du am du am mbubb la moom ku ko amoon solal ko keneen waaye ñëpp amuñu ko du ko jóg mën koo am mbubb la moom dañ koo seet ba xam ne ak jagle la boo xam ne ay xasaayis la yoo ko yàlla bokk na ci xasaayis yi euh, radiyallahu anhu wa nafa'ana barakat yi mooy li euh, li mu xalaat noonu na euh, su ma waxantoo yàlla defantum kooku mooy seexoon fada way juru alaaji seexu mi mbàkke falilu mi di ci siyaar baax a baax a baax njabootu Cheikh Ahmad Fadal képp Euh, sër Murtada Falilou yu ko ci delloo njukkal bu baax wala sa wante euh, euh, mu ànd ak ku baax di rakkam bi sëñ Abdoulahi Ah, Abdoulaye tam wax naa ko ci tàmbali ñu bari dégg nañ ko waaye ump lañ ko waaye defe naa ni euh, bëgg naa nga dikk ci diggam ak Serigne Touba itam nag ndax Serigne Abdoulaye bokk na ci ñi gën a yàgg ak sëriñ tubaa mhm. yaakaar naa ko ba kaw taarix wax na ko. Mhm. nee nañ njaareem di ci ëpp ci nekkul Serigne Touba ci yu mujj yi at yu mujj yi bala ngaa gis Serigne Touba di nga gis Serigne Abdoulaye wala Serigne Bassirou. Mhm. ñenn ñi ci des jox na leen ni daara ay dëkk ñu dem fa ber seen daara nekk ca ci ndigalul Serigne bi léegi léeg ñu dikk sax gisee ak Serigne bi daal di delluwaat waaye am naa nekk ak bi taqoog moom moom sëñ Abdoulahi mu ci ëpp lu mu ko def nee nañ sax am nañu yegg ci ni 13 ans yu mujj yi taqali ko wuñ fi mm-hmm. euh, bi ñu ñëw it am na yu muy ndaal yooyu donte ñetti waxtaan a am néeg ak pénc ak ëtt waxtaanu pénc saa boo ko waxee ci wu néeg saa ko ci pénc ba lu am yow te waxam léppam euh, donte xam nga ca tuuti am na ci loolu di ko wax mm-hmm. ci ci ci mbooloo wante euh, bokk na ci ay ay ay jagleem ci njàngam nam demee ba ki sëñ Tuubaa indi woon ak ya ca xew bokk na ci céyeen ak itam gànnaar yoo xam ni lépp dee su ko tudd ni ma ko waxoon foofu laa bëgg dikkal ma ci tuuti ci eh, duppee gi ñu ko duppee ak kan mooy sëñ Abdoulaye boo ko doon defal taarif donte umpule dee su ko mën a xam sax waaye maanaam ci ixtisaaran ci li nga ci xam eh, ci te loolu sax waxtu wi du ko àttan waaye man huwa kan mooy Cheikh Abdoulaye Mbacké mii ñu duppee bis bi waaw euh, Cheikh Abdoulaye mm-hmm. mooy eh, doomi Serigne Touba ji nga xam ne moo njëkk a feeñ ginnaaw bu mu delsee ci géej gi ndax bi mu demee gànnaar ci lañ ko jox euh, Sayyida Fatima bint Cheikh Sidiya mu indaale ko bi mu ñëwee Ceyeen fala Serigne Abdoulahi Gane àddina di bokk na ci xarbaax yi xasida goo xam ne xasida quraaniya la ñu mm-hmm. minal xaqi mm-hmm. wax nañ ne munaasabab dikkug sëriñ bi ci àddina mm-hmm. bokk na ci la co sëñ bi doon firndeele ndax joxe woon na ko ne nañ ko def ci néeg soxna si wala danañ nañ ko jàng jamono yooyee daal la ko joxe waaw waaw maanaam bu fekkoon taalifoon na ko lu jiitoon boobu la ko génne boobu la ko génne waaw boobu daal lañ ko gis moom dañ ko gis euh, léegi nag bi loolu amee te sëñ Touba doon koo xam ne dafay am ay dimension yu bari mhm. bi muy sañ ci Thiéyène mhm. dafa def li ñuy wax étude du milieu mhm. étude ndax bi mu dëkk dafa wax ne nañ ko seetal ci wet gu ne nañ ka lay takke seeni néeg bi ñu xoolee ñëw wax ko ne ko nii lañ ko takkee am boobu defuñ ko ñoom ay puj ci jolof dañ ko takk rek mu sew wuti kaw mu ne nañ ko takkale noonu kaas yam ko doon def uh-huh. bañ bëggé insister mo ne leen nit bo ñëwé am sa lu baax té bëgg mu nangul loxo ko dang koy nangul lu baax la mu am njëkk mm-hmm. ndax ko ñëw ne ko ma la gën bu la ñu intégration bu ca war lu ci am mm-hmm. té bu boba bu dugg ci yow yi wa nga am du ko xam du nit ndax xam nga sax ab sa ba ba mm-hmm. kon Serigne Touba bu ñuy wax xar baax yi ak jagle ga ak sañ-sañ ba euh, nité ga ak xam nga adina dafay am solo lol deug la mu ne nañ ko tuddel gan fi ñew Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas dah xam ne moom ummah, ini wax punya umma muy xel yi yëpp bu ñu xol tan mo ci ëpp xam-xam moy dañuy moy te moy Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam ndax yonent bi moo wax ne mhm. ku yalla nam ci mom aw yu daf koy xamal diine mhm. da ko wax ba noppi nak daan ne allahuma faqihu fi diin moom ñaanal ko ne yàlla yàlla na nga xamal diine abdullah ibnu abbas ni abdullah nag am ay melokaan yu bari yoo xam ne turandoom gi def ko jël ci moom muy saa masoon a dem ci moom danga nga xéewlu ko masaan a dem danga jàng saa masaan a dem ci moom danga nga jariñu da fa jëlee loo xam ne imma maadiyan wa imma maanawiyan moo xam lu matériel la wala muy loo xam ne lu baatin lay doon mm-hmm. loolu nag daf ko topp mm-hmm. mu jàng it alquranul karim mm-hmm. ki ko ko jàngal muy Cheikh Abdourahman Lo Cheikh Abdourahman bi mu koy jàngal saa yu amee diir bu néew rek dafay dem moom Cheikh Abdoulahi ci Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ko dalal jàng bi mu ko laajee bi mu ñëwee ñëw yoon yu bari yooyu ci moom Serigne Touba ne ko waaw lan moo tax Abdullahi lii mu ne ko yow laa bëgg nga jàngal ma mhm. noonu la ko waxee daan na tëju ak moom ci biirub néeg mhm. euh, nee na daan na dem ba day doy waar lool ci yaram bi daan na gis Serigne Touba ay fel wala yu mel noonu di ko sam mhm. mu di ko laaj naan ko lii ndax daf dul metti mu ne ko ah waaye dañoo amut sañ-sañut di ko jàmbat di ko nit ñi di jàmbate bi mu génnee mhm. jaaxal nit ñi lool mhm. ñu laaj ko ne ko waa sëñ bi xanaa lii du nit na akay ah, nit laa mhm. waaye li tax ma mel nii mooy damaa nekkoon ak ku wuute ak nit ñi kon ci kanam tuuti ñu mën a jërëjëf euh, sëriñ xam naa ni dañu jël siwaat léegi ci yow ci kàttanu yàlla xam ngeen ni euh, bis bi dafay nekk euh, loo xam ni sëriñ bis Serigne Fallou la mu duppeeku Serigne Abdoulahi ñu war a sëq waxtaan wi ci ñaari jëmm yu màgg di ñaari doomi Seexul Xadim Xadim Rasul mm. tax na du ñàkk ñu dugal kenn ci njabootu El euh, Hadj Cheikh Oumy Mbacké Falilou mu indi lenn ci ak leeral ci sababu bis bi itam euh, ak itam jot woote Serigne Cheikh Oumy Falilou Mbacké ci digalul euh, kilifaam gu baax gi di sëriñam di magam Serigne Abou Mbacké mi toogee jotaayu Serigne Fallou waaye ci ndigalul. njabootu Serigne Fall yëpp góor ak jigéen xam ne ñëpp ko ànd ak moom eh, ñu ci nuyu bu baax sëñ Ahmad Rafaay Mbakke Alaaji Muudu Xaban Mbakke Falilu eh, di ci ziare bu baax a baax eh, Serigne Aliou waaye di ziare Baye Cheikh Awa Balla Falilu Serigne Takko itam duñ ko fàtte mukk Serigne Takko Mbakke Falilu xam ngeen ni incha allahu le cinq ci kàttanu yàlla ñu la ko Serigne Cheikh Oumy di taxawal di ko taxawal fan. ci ndakaaru fan ci ndakaaru ci foire internationale bi te journée boo xam ne jubluwu ci lenn bëggu ci lenn dara taxul mu def ko lu dul am ci ngërëmal Serigne Touba Xaadim Rasul waaye mu jaare ci ngërëmal waay juróom woon di Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ni eh, doomi Serigne tubaala waaye taalib bi Serigne Touba te moo daan wax ak yëpp ak dib taalib ci gën loolu moo tax bis boobu sëriñ Serigne Cheikhou mi tànn ko jàpp ko am ci ndigalul ay kilifaam waaye ay sëriñam ay bokki boppam yëpp nag ñu am ci ànd koog moom mu di ko taxawul Serigne Fall mi nga xam ne kenn ku nekk yéene na ko taxawul bis tamit mat a taxawul bis di borom bis liggéeyal Serigne Touba liggéey bu rëy bi nga xam ni eh, boo xoolee bu duggee Touba rek dërul laaj xool jumaay Touba ji nga xam ni sag la ci yoon wi di ndamul tali bi yëpp nga xam ni eh, Serigne Fallou Mbacké ci moom la ko loxoom la ko yàlla àggale ni ma ko waxee eh, Serigne Mame Thierno Birahim Mbacké kon dañuy dugal kenn ci njaboot Serigne Fallou Mbacké mm, moom tamit lu dugg see egsi nu dem ci journée littéraire bi sabab bi ak lu ko waral ndax xam nga bii kàmmaloot yaatu wala di taq yi wal fardu man jaaraa u saara latima loolu la waykat ba ne na yéene Serigne Touba Xaadimu Rasuul matti na ci moom mooy ki nga xam ne daal kenn la képp koo ko Serigne Fallou nee na kooko tardé na kon nag euh, tëkkali wuñ ko kenn moom Cheikh Amadou Fadal Mbacke doomu Serigne Touba laa nu fare ko bay naa xadim ñu rusuli noonu la ñu téye Serigne Abdoulahi Mbacke noonu la def Serigne Abdou Khadir mi ñu dëgmal bisam di siyaar bu a baax Serigne Cheikh Mbacke waaye nañ ko alaji Seexu mi Mbàkke le 25 ci kàttanu yàlla ci foire internationale bu Dakar ànd koom njabootu Serigne Fallou Mbàkke gépp waaye ñu ngi bàyyiloo xel bokki taalibe yi itam mais incha allah ni leen euh, noo ngi dëgmal euh, le 28 daarul mën naan ginnaaw si bàggalu si xaaral ci kàttanu yàlla ànd ak débat yi yëpp wuy ji taalibe ba wuy ji doomi Serigne Cheikh Awa Balla ji toogee jataayam muy kan alaaji maam Thierno Birahim Mbacke mu Serigne Cheikh Awa Balla foofu nag euh, dañuy bàyyi itam ak euh, rek euh, waa kër Serigne Fallou Mbacké ñu dugg ci kàttanu yàlla wala Serigne Cheikhouna dellu si foofu ci sëriñ bi ndax journée bi dafa am solo. di bis boo xam ni comme sabab bi dikk nga Serigne Abdou waaye lan moo tax su journée culturelle bi lu ko waral. ak tudd gi ñu ko tuddee nga xam ne war nañ ko ko tuddee ndax ko am bis la itam di kat foofu tuuti. ko ko dañuy sant di gërëm di ñaanal suñu waajur sëriñ yi. Eh, Alaaji Cheikh Oumy Mbacké. Mm-hmm. ndax bi mu xalaatee lii. lam ci mm-hmm. jublu. moom nee na luy boole bokk gi. Mm-hmm. di silatu rahim. ak di ko dundal. taw tey du alaakaatil al alaakaat alhamdulilah naam loola moo ko tax a jóg. Mm-hmm. loolu nag di loo xam ne lu am solo la. Mm-hmm. ak it alxuraan bu ñu ko xoolee. Mm-hmm. la ca nekk. la ca ëpp. nettali gaa yu baax la. ak nettali yeneen gaa yi sax. ngir mën a jariñu ca la gaa yu baax yi defoon mën a mucc it ca la yeneen gaa ya defoon. dëgg la kon loolu moo tax mu taxawal ko di ci tuddee njabootuk Sëriñ Tuuba ngir ñu fàttaliku leen mën a jàng seen jikko yu baax ya man caa roy man caa jariñu mu doon lu dul jeex incha allah waaw bis la kon bu am solo boo xam ne ci kàttanu yàlla ñu ngi ko dëgmal euh, fas ko yéene ànd ak Eh, l'islam gépp waaye ànd ko ak njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul eh, fas ko yéene itam ànd ak waa kër Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké waaye loolu ci ndigalal eh, Serigne Abo Mbacké la ko Serigne Cheikh Oumy doxal na xam nga yoonu murid mu tëdd noonu at mu jot wala mu cee waxaat dara foog mu dellu ci Serigne bi mu yeesalaat ndigal li du ñu wax rek ni joxoon nañu ko benn yoon at mu jot fokk mu dem Serigne bi yeesalaat ndigal li Serigne bi yeesal ndigal li ba noppi mu fekk mu demaat ci xalifub Serigne Touba itam bu jaaree ci xalifub boppam di di di sëriñam di léppam dellu ci Cheikh Sidil Muxtaar amaat ci ndigal woowaat bokk yëpp waxtaanaat ak ñoom ci loolu euh, kon noonu la ko sëñ Cheikh Oumy Mbacké def parce que yéen itam euh, taxawal diiru dund yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko fan lu gudd mu ànd ko ak njabootu Serigne Touba ak njabootu Serigne Fallou gépp bu ko defee euh, nu ànd ko rek ci kàttanu yàlla ak Serigne Cheikh Oumy waaye ànd ko waa kër Serigne Touba yëpp rek ci gàttal ànd ko ak njabootu Cheikh Modou Fadal loolu mooy bis bi waaye maa ngi bàyyi loo xel rek incha allah ci kàttanu yàlla euh, bu ko yàlla dogalee alaaji maam Thierno Biray Mbacke incha allahu moom Serigne Cheikh Awa Balla eh, mi ngi bàyyiloo xel boolu yëpp ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ni ñoo ngi koy taxawalal way juróomu tedd ba eh, sama turandoo bu baax ko Serigne Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Cheikh Awa Balla mi nga xam ni moom leen duppee tey Serigne Touba Xaadim Rasul mi fi toog mu mat sëkk Serigne Touba ba noppi eh, muy lépp Serigne Sidi Muxtaar di loxol Serigne Sidi Muxtaar bi kenn ci Serigne Sidi Muxtaar kooku mooy sëriñ Maam Thierno Birahim Mbakke Maam Thierno moomu nag ci kàttanu yàlla. Euh, moom tabaxal Serigne Cheikh Awa Balla fee mu tëdd tey tabax jumaa jee ci ndigalul Serigne Cheikh Awa Balla taxaw di taalibe taxaw taxawaay bu mat sëkk boo xam ne bii kenn mësu ko gis ci lenn wala nga dégg ko ci lenn lu dul liggéey ak jaamu yàlla loolu rekk ci la nekk ci lay saxal njabootam ci lay taxaw la ay taalibeem moom lay digle suba ngoon guddi tàkkusaan bëccëg loola itam ca la ne waaye itam xam ngeen ni loola laaxaar wa ndax way juróom wu tedd wa sëñ Cheikh Awa Balla la mu dëkkee woon rek mooy istixfaar jéggulu suñu borom liggéey ak jaamu yàlla ak tuub ak dellu ci yàlla te loolu alxuraan daf ni nañ ko def lu baree baree bari istighfar suñu borom di ko digle lu bari de wax na ñu yonent bi rotal wax na ci addis saxiix yoo xam ni nañ euh, texe ñeel na képp koo xam ne fekk nañ ci ëllëg lañ sa maktub sa saxiif ñu fekk ca istighfar yu baree baree bari kon kooku mooy borom daarul marnaan Serigne Cheikh Awa Balla nuy bàyyi xel rek euh, ni incha allah ci kàttanu yàlla daayira yëpp ak taalib yëpp ak jullit yëpp la ci sëriñ bi woo ko xasee doon laa ilaha illallah ci xaadir ña seen tijaan laayeen cene ba bayul kenn bayul fenn bayul ñenn képp koo xam ne yàlla man loolu na ko daal na nga ñëw incha allah ci kattanu yàlla nu ànd daaru marnaan rek eh, màggal ku màgg wax naa ko ba tàyyi nag booy def koo gis teral ko léegi nga teral ku yàlla teral jóge fa tedd faw waaye kuy def koo gis teddadil ko léegi nga teddadil ku yàlla teral jóge fa tedd di moom muy tedd rek kon nag bisa ngoog boo xam ne bii mënees na cee jële ak tonowu mënees na ci jële xéwul mënees na ci jële texek àdduna ak àllaaxira muy lan dem seeti waa ju baax ndax itam boo ko yoroon tuuti masalikul jinaan da nga gis waa Tuubaa daala ay xéewal ak i beernde ak i teraanga ak ndomb ak tànk wala wala wala may suñu bu mu tee mukk nga dem seeti ku yàlla jox xéewal wala nga amul may ba xeeb may kenn nee na bu mu ko tere loolu day fax day tax toxramul ujura wal manafia day mujj rek nga ñàkk ay pay ak njariñ te waxkat ba daf ni woon loo man ci lu baax sàccal bu ëllëgee muy njariñ te ginnaaw fu jëm lu baax du fa doy incha allahu te nangu na fret kon ñu góorlu ci loolu ci kàttanu yàlla eh, fas ku yéene ànd ak eh, eh, njabootu Serigne Darou Marnaan gépp ànd ak nag bu dee ci ndakaar nag ñu ngi ànd ak Mamadou Lamine Mbacke Mamadou Lamine waaye di nuyu Mamadou Bachir Mamadou Bachir Mbacke di ko bàyyi xel baax a baax a baax a di ci wax fédération Cellule maçon bu sëñ Abdou Aziz Abou xam nañ digganteem ak foofu ni mu mel kon muy benn kër yu dëkk di Darou Moxti ak tuubaa waxoon naa leen léegi ci kàttanu yàlla ni leen incha allahu eh, danaa teewal kenn kenn dana taxaw léegi ci studio bi eh, eh, wax ci sëriñ fallu ak journée culturelle bi Euh, yàlla dogal na kenn egsi na ci ñoom euh, muy Serigne Makhtar Ngom euh, di sunu rak ñu adressé ko adresse bi ñëpp soxla Serigne Makhtar ngoom sopp na bi Makhtar Ngom sopp na bi damay daal di dem rek léegi ci moom ci kàttanu yàlla daal di koy jox mu nuyoo mbooloo mi daal di enchaîné nag bu nuyoo rek dafay jàll wax ci alaji Cheikh Oumy Falilou mu baax mi ndax alaji Cheikh Oumy kat wax dëgg yàlla jëfam am na solo. Euh, nii la euh, euh, di woo ñi ci lii rek jëmee ci sëriñ bi innal asanaat yusibna sayiat bu ko defee nit ñi mën a jariñ te koo woo sëriñ bi dimbali gu ko ndax suñu borom lii loolu waxoon istijibu lillahi wa li rasuli waaye isa daakum li ma yuayikum moo tax kon maxtaar sopp bi lay daal di jox léegi kàddu gi waxoon naa ni itam waa kër Cheikh Modou Fadal Mbacké yi ak Serigne Abdou Gaye ak bokki téléspectateurs yi ñu leen di nekk ci 88 628 71 71 pour ku bëgg a jàkkaarloo jokkoo ak seen mbokki taalibe bi Oustaz Cheikh Awa Balla Seck wala Makhtar Ngom sopp na bi fii ci Guédiawaye tey mooy daanu te eh, LCS Serigne Makhtar dama lay jox nga daal di nuyoo waaye nuyoo bi nag na ànd ak dugg nag fi saasa ci alaji Seexu mi Mbàkke Falilu mi taxawal lu am solo lu rëy lii la 25 ñu fas ko yéenee ànd ak bokk yépp Touba gépp ànd ak moom waaye jullit yépp ànd ak moom na bis bi du koy tiim ci xol bu sedd bu bi boo ko xoolee gis mu boo xam ne da koy wóor ni ko euh, ci moom ab bis bi jubee rek ndax fu doomi Serigne Fallou ne te tukki woo da nga ñëw ñu bari sax danañ fomm ñu bari danañ dagg seen waaye dikk ngir ànd ak moom nga xam ni kon euh, ak euh, rafle du la wolof ba woykat baxoon du xewle euh, jóga dem làmb de mbubb euh, jotoo ci gisoo fait mu rafet sol euh bass à da koy netti lu rafle woote wala nga xewle gisoo say bokk loolu mooy rafle kon sëñ Cheikh Oumy Falilou Mbacké moom rafle woo ndax bis bi ku ci dikk ba sa dikk mbaa nga ubbi benn télévision bu bis ba xool yi koy def direct ak yi koy ak rajo yi te ak gen bu ñu synchronisé bu dëkk ci réew mi ak bitim réew xam ne yow rafle woo yàlla na yàlla yàgg laa taxawal nuyu bu baax sa wala réew sëriñ Tàkku Mbacké Falilou maxtaan ngom sopp na bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaa fi teewal jabootu sëriñ Fallu ci journée culturelle bi bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بركب سرين فلو بركب سرين فلو بركب سرين فلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، نومي نيو نيب دي جيدل تي نيو خليفه جنرال سيدي مختار ñu ngi koy siyaaree ñu ngi koy siyaaree xalifa généraux yëpp comme ni nga ko waxee comme waxtu wi li ci ëpp dem na dañuy gàttal nuyoo bi rek bu nu nuyoo alaaji sëriñ Cheikh Oumy mi nga xam ne ci kàddoom la ñu fi ñëwee nuyu nañ njabootu sëriñ Tuubaa yëpp euh, yow mi jigéen ma tey sama xalifa di sama mag nu bokk lépp nu di bokk ba pare ngay saa bokkum taalibe di sama jëw ni su ma la nuyoo nuyu naa bokk bi yëpp euh, wax nga dëgg ginnaaw bi nu nuyoo sant yàlla julli ci yonante bi jaajëfal sëriñ Tuubaa beesal sunu pas-pas ci moom wax nga dëgg bis boobu yi moom la ñuy waajal muy journée culturelle de Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké bis bi nag bis la boo xam ne fàttaliku nit ñi fàttali nit ñi li war ab bi ak li warub sëriñ cib bi nu ne sunub sëriñ cib taalube la du woo boppam ci la nu woo ndax saa boo toogee ak alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacké moom sëriñ Fallu lim lay wax mooy nun ñëpp ay taalibe lañu dañ leen a jëwriñ ci liggéey bi waaye noo bokk ku nu yaakaar wax ah, na dëgg de musuta wax sëñ Fallu saa waajura musuma ko dégg man musuta mhm. dégg mun naa sëtub sëñ Touba laa suma ko dégg man ay taalibe lañu daal yu ànd ak yéen liggéey liggéeyal sëriñ Touba di wax ne nañu góorgóorlu te nangoo jaamu yàlla te xam ne ku nangoo jaamu yàlla ku ne da nga am teraangay ëllëg ku nangoo liggéey ku ne ci àdduna da nga am teraangay loolu kooku yi nag moo woote su nekk teelu bu seex moom du Mamadou Fadal Mbacké kañ lañ koy def le 25 octobre bii yi jëm bu soobee yàlla samedi lay doon buñ ci àggee ji nu dëgmal ña ngi koy defee ca ci si Cissesse lañ koy defee mooy foire ba fa la ko daa defee at mu jot ndigal it la ci am ci Cheikh Sidi Moukhtar ndigal lu jëkk la sax ba mu ko ca jamonoy Alaaji Baara la ak Cheikh Mamadou ak Serigne Saliou Mbacké mu baax ma ba mu jëlee alaaji baara wax ko ko alaaji da moo ci jëkk a ñëw ba mu di xalifab sëñ Fallu doonagul sëñ Tuubaa dëgg la ñëw taxawul ko boppam keroog bi alaaji ñëwee teeg dani ko nun kat ay taalu bi la nu woote la nu am waaye ginnaaw yaay sëriñ bi nag yëpp yaa ngoog ko ko ñëpp toog noonu la def waaye ba mu ko yëgalee dañu ko demal nga nga tàggoo ji ci ku nu yilif yebal ko ci sëriñ Saaliwu ma mu demee ci sëriñ Saaliwu sëriñ bi xamal ko ni ko ah yow di ni ko sëñ bi de danoo doon def bis boo xam ne dañ koy taxawal di ci fàttaliku ñun waa ko Cheikh Mouhamed Fadal Mbacké mu daal di am ngeen ci ndigal jox ko leen ci ndigal mu del ci alaaji baara alaaji ni ko demal ni ko moom lañ koy tuddee mu dellu ca Serigne ba Serigne Saliou ni koy kat Mbàkke kat danoo am digal ci yow mii lañ ko bëgg a tuddee sëñ bi daal di ciy bëgg lool ni ko loolu da daa mel ni yaa ko njëkk a defal ci yow laa ko njëkk a dégg ndax mii noonu naa tudde bis waaye ginnaaw ka nga koy tudde wàccub liggéey lay doon waaye tudde nit nag bis nag mu fekke ko nag tey dund loolu noonu koy doo ko gis daal di ci nag dinaa ko ànd ak yéen ba mu yegg dinaa ko ànd ak yéen ba mu àgg waaw yàlla na ngeen ci taseeg taw fiixi Serigne Touba amiin waaw kon nag moo fàttaliku bii nag mooy juróom-ñetteelu yoon muy hmm. huitième édition hmm, hmm. juróom waaw sëriñ bi nag nee na koo xam ne dañ koy tudd di tudd sëriñ Fallu yaa moom bis bi bokk ko kenn bisab sëriñ Fallu la moom nag ab taalibe ak taalibe rek la ca woote bis bi bëgg nag nit ñëpp waajal ko noo xam ne bi bisab fàttaliku la fàttaliku nag fa zakkir ina zikra tanfaul muminin loolu alxuraan wax nañu ko ba tey da leen fàttali ndax fàttali mën naa mën naa dimbali jariñ ki nga xam ne nii daa gëm ndeysaan ki yor ngëm boo ko fàttalee da koy gëm dëgg la bis bi nag bis la boo xam ne alaaji sëriñ Cheikh ummi ñun waa Pikine ak waa Bariye bi ak waa Ndakaaru ak waa Touba ak waa ba ca Bakki Bari ñëpp ko sant ñëpp ko gërëm. waaw waa kër sëñ Cheikh Coroña. waaw waaw ma ngoog nga dafa jaxasoo ñoom lool waaw kër sëñ Cheikh Coroña mm-hmm. mi nga tudd léegi ñoom mm-hmm. ñaar la boole jox Baay Cheikh mm-hmm. di seen mag taxawu leen taxawaay boo xam ne sëñ Cheikh Gaawaan ba tey saa boo ne sëriñ Cheikh boo gese mu ne ci wetam Maxtaar xam nga euh, dëgguma la waaye sëriñ Cheikh mi Falilu euh, lii mu def rek la war a def nii rek la war a mel Eh, su fekkee mi ngi may dégg duma ma jéppi ndax moom. mi ngi lay dégg mi ngi seetaan eh, waxuma sax ni doomi Serigne Fallou ji loolu doy na. Mhm. sëkk. wante eh, ab taalibe la. wér te loolu la war a def nag. ah dañu ab taalibe la de. ndax bàyyam moom am na ko toog fi wax ma ko léegi seen jeexu naa moom ku ne xam na ni buggutoo doon lenn lu dul taalibe Serigne tubaa mhm. moo fi ne jaay naa li ñuy tuddee Juréel moo ko njëkk a wax. moo ko njëkk wax de. di dëkk taalibe jël njëg ga joxe addiya. ma la ko wax. pour doy waar la. la ko ñaareel. Euh, Serigne Abdoulaye. ñi nga xam boo ko tuddee sa xel yëpp dem ci liggéey ak jaamu yàlla ak taali bi. Mhm. ba bu daan toog boo ko bala nga koo laalal mu toog ci suuf sóonu. d'accord ku bàyyi woon xel Serigne Cheikhou Mimi la. ku ko bàyyi woon xel la moom xam na li may wax. moo ko moo ko yar moo xam na li wax bu baax a baax xam ne dama nekk télévision mais mën naa ci wax leneen. dëgg la te li ma wax waa Touba duñ ma jéppi ku ko bàyyi woon xel la moom Serigne Abdoulaye. wér na noonu la meloon. Euh, kon euh, sëñ Blaat boo ko bàyyee boo taxul moom tuuti rek war a amul taalibe ak foo mën a bokk ak foo mën a jóge waxumaa nag euh, doomi sëriñ Fallu nee naa léegi bi nga daataan dugg si sëriñ Fallu nee ak jëpp ak di taalibe ci gën ay ci cëyal la jébbaloo bu yàgg lay waaye lu ñu ci làmmiñam mu njëkk ni ko mais lu ñuy tudd naa ko fi effacé naa ko bu waaw kay yaa fatihal maakaana xablu murtaja biatu bu nu watiyee bil iraad yàq lakum li kay osa bi xaqir aana am na ko it gis nga moo tax yomb dama ko wax fay na jomba sama benn xarit ne ma ba wis kob xaal maa maa la ko wax waaye gis nga billaahi nangu jëlul ciru bañ waaw bañ jëlul ciru nangu wax naa ko ba tey parce que bañ mënut am ciru nangu nangu bëggul ciru bañ waaw wér na pé nangu bëggul ciru bañ ku ne rek la fa am dugal la yàgg dëgg waxuma doy na ko faqran wu majdan lépp doy na ko anna waliduhu sayxul xadim doy na ko Serigne Fallou. dëgg la lépp de garaat boo mënu koo takkalati garaat. dëgg la su doon Serigne Touba la doy na ko waaye li mu liggéeyal Serigne Touba fu kullu man xaddama ni aw saara. fan la ji wax firli ko aw saara. xoolal jumaay Touba maa la ko wax. moom doy na. mako ko yeggale de boo ko dee waxtaane joxañal juma ji malako wax de tek sëñ Tuubaa fo xam waaw wax na ay beuy ba waxuma la ki ko tabax ak lim ci waye ni man banaw wax fir li man banaw bina a rafi waye ni man amar wali man wali jamia man a'anuhum ala bina li bi fadlika tala deug la parce que artiste bi ko dessiné carreleur bi ki monte courant bi ingénieur bi électricien bi ñëpp Serigne Touba mi ne tërul naa leen ba sama borom jéggal ma leen. maa la ko wax de ak wax fi li waxu daanu ko naqaloo am te at yi ma jëwaat ay xalu daa fekk bu yàgg ma ni li si ne saara wala xidmat fi dawul diyaar daa fekk bu yàgg la woon wa talabtu min ilaahi jalaba in salaftu min ilaahi salaba dafa amit wali taqudu so la waxta talabi lay ndeysaan kenn buy laaj sag la boo xam ni mu nga mu denc bu yàgg da ci teg loxo ma nopp dégg dem na itam ba ni euh, rasulullahi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni muy lépp sàkkul na ma loo xam ni xel ak bu ca ca sunu borom <laughs> talabta rasulullahi lii foo xamat la bii mi ne lay rabbi wax na ko ba tàyyee bay loolu nag euh, mu ngi fi euh, bi nga ma waxee léegi juróom-ñetteelu yoon sama xel dem ci waaye am arsala bi ki ma si alayha samani juróom-ñetti malaaka yu gàddu xam nga ah, ah, xam ni ñu am sol waaw xam nga xoolal loolu kenn suñ fal duñ ko ni jumaa ji teen koo def aski rek jàkk mu ne waaye lu tax mu ne ko diisaay beeg suuf si mu ne bu na amee la ko ne nag ci ni ko ni tey ko ci suuf nag na jub waay man daal ko wax joxoñ ko rek te benn ku baax nee na ma tabax nu jumaa ji ba mu yëgg réewul keroog ba ko wëree lamp yu tàkk sëñ Cheikh Fall Baye góor ànd ak gaynde faat mu jóge Daaru Xuddus nañ ko tabax naa jumaa bind kaamil yokk naa Tuubaa tey ba daara ma ne ko wax bind kaamil bàyyi fi wallahi alazim mais ñu am na sax ñu wax ci ni maa ngi ci média ni joxoñ na keroog ñu dugg texee ngi maa la ko wax wallahi kon nag euh, alaaj Seexu mu Mbàkke fan yu mhm. lii wa maa yulaqaahaa illa suu azim waaw waaw al aaya waaw bu ko defee donc loolu la fi denc loolu la rek liggéeyub Sëriñ tubaab bu mu liggéeyoon ba bàyyi fi la nag la ñoom la ko ne ñoretal rek laa waxoon sama jàbbu karim makarim laxlaax mu baax mi mu ko bii lu ñu fi dencoon la Sëriñ Tuubaa ma mel noonu waaw waaw xam nga dafa waxoon ni. waaw foofu la toll waaw zurriyatan tayyibatan. tujaddidu ndax jënd bi mu sax. waaw loolu la tujaddidu boobu nag. waaw lu nga war a tëj diit. waaw fan nga tëj diit ko yow. waaw mu ngi noonu newoon na journée culturelle bii. waaw na ko Cheikh Oumy di wooteel. ndax ru fi atil aqlaam kat wa jafati soxu. par exemple nag waaw doo jóg ca sama borom. gis nga film bi yoonal xe sotti na fi mu toll nii. dama ne ba bis penc ba saaba liy xew lépp film baa ngi fi. xanaa léeg-léeg ñu may ci nit dix cent ci kanam mu xoolaan léeg-léeg ñu xool ñore trois jours nga ni ah suba diw nangam dana aw. te du daj léeg-léeg nga see am ku ci seetaan un an. xoolal léeg-léeg daa mel ni nag. waaw sëñ seex mi dama la ceex dara. waaw sëñ seex mi lu bari war nañu ko noonu. comme ni nga ko waxee am na loo xam ne ko wax ci. bu caagi ni sax waaye xam nañ ci waaw xam nañ ci moom lenn. waaw sëriñ seex du la wax mu ko ay léggéen lu mu lay wax day am fu mu ko teg ci saa buy wax yow jiital sëriñ tubaa teg ci sëñ Fallu saa buy wax yow bàyyi yàlla xel. bàyyi yonent yàlla Muhammad xel sa boko ne fokh foox loxo li muy def moy tere manam teraangay doomu aadama ji la yàlla teral la lay jëkk jox ma nga def ba mu ben problème limi muy def moy dindi sa stress ba mu tegg mu soo ko waxee yow ci gis nga lolu sa boko ne fokh euh, loxo di xol man manam euh, dimension bi mu toog différence bu mo war ànd ak yow li muy jëkk def wàcc na ci suuf euh, yow soo wax ak yow maxtaar waaw tilka daarul axirati la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada ma nga non nak donc suñu borom fokk gis nga wacc sa bop moy di am solo nit ak tawadu luqman saaru dafa dafa ah, xisaam kanem yalla dako ko nettilaat yonente bi ngir am solo fulu ci wala tu jadilu gis nga lu am solo la ndax gis nga walaatu sayir nas wala tam fil ardi maral am nga yooyu lu am solo la da ma bëgg wax lu am solo rek lo xamni ne bi la bëgg mu genn ko bala émission bay jeex moy mhm. wa dairatu salam gii nu andal di liggéey ak mom ah, salam da am solo sax salam waaw waaw gis nga dairatu salam hmm. sëñ bi bi mu koy def jam rek la ci wote wax ni waa daayiratu salaam liggéey bi nañ ci gën a góorgóorlu lu nu man bis bi ñëw na yëgsi na kenn ku na koo xam na nga ko wax te koo oyte boo ñëwee na nga ko jox àq bi mu am ci yow fépp la jël ay place muy sëriñ muy ministre muy président de la république muy Cheikh Amar muy président muy muy bi ñépp kenn ku ne wutal na la sa place taalibe bi bu nekk boo ñëwee nee na na nga def sa moroom muy sa morom kenn ku ne nag koo gis na ko yërëm na nga xam ne sëñ Tuubaa boote ci sëñ Tuubaa bootee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo woote te lislaam rek la te bëgg na bu ñu ñëwee kenn ku nekk fonk sa bopp fonk sa morom ngir xam ne bisab jàmm la boo xam dañuy fàttaliku borom xam-xam yaa nga fa bu ñu ñëwee danañ waxtaane sëriñ bi am na ñuy wax ci problème am na ñuy wax ci yeete ci diine am na ñuy wax li waral bis ba. am na ñuy wax ci ci bokkuk sëriñ bi. am na ñuy wax ci fi jamono. yaakaar naa ne dañ jàngal kaamil. waaw la ko loolu tax ci jàmm ci réew mi. waa Daara ji noonu la wax ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar ak kilifa diine yëpp. ak Serigne Abou Falilou kilifa diine ci réew mi loolu wax na ma ko ci làmmiñu. loolu sax boobu ba léegi dana ne. Hmm. di jàng alxuraan. Hmm. waaw ko dégg rek na nga tàmbali di jàng waaw ngir bis bi jàpp. njaboot Serigne Tako Falilou. gis nga ni ñu taxawoo seen wayjur woowu eh, di sëñ Galas Serigne Cheikh Ali Basiru Fallu njabootam gis nga ñoom ñëpp gis nga doomam yooyu doomi magam yooyu Euh, nga xam ne ay doomi kilifaam lañ di doomi sëriñam euh, gis nga ni ñu ko def loolu woyof ga tax waaw euh, boo demee ku mel ni galas ndindi bu sëñ basirum sëñ fàllu waaye gis nga na nuyu bu baax waxtu yi technicien yi neen jeex na waaye ñu delloo njukkal Cheikh Gaawaan Mbàkke mu sëñ Cheikh Thioro ku baax sëñ Cheikh Gaawaan gis nga baax na ni mu def sëriñ Cheikh um yaru na ko teg Euh, ngir yàlla teggin ak jëmmi sëñ Fallu am na xam-xam euh, ba noppi itam mun naa topp murit gis nga fi ne boo waxee ak moom léegi mu tëb mbëkk bi mbaa mu naan lu xam nga lu ko waral murit nga ci moom ak dëggu ga tax na maxtaar euh, ñu sant yàlla mi nga xam ni moo ñu boole ci lii ñu fekk ko yàlla nañ ko yàgg fekkee hmm. maa ngi wax ni incha allah ci kàttanu yàlla bi si rek am solo bu soobee yàlla ñoo ngi waajal ñu nit ba le 26 le 28 ci kàttanu yàlla daarul mën naan déedéet waaw waaye 26 dafa am daarul mën naan bu magal sëñ Saxaw Balla waaye 25 moom foire la bu Serigne Cheikh Mbacké nan ngay tàggoo rek gars yi nañ ma dara. su ma doon jubloo yow sax nee nañ ma jeex na tàggoo ñu waajal daal foire bi la 25. waaw léegi li Alaaji Cheikh Mbacké Falilou. li may tàggoo daal mooy sant bu baax Serigne bi te di ko ñaanal. Mhm. te goo xam ne ñu nekk ak njabootam sant nañ ko gërëm nañ ko jëppiwuñu ko duggul ci lenn lu ñu amee problème moom nag moom mu ngi sant alaaji sa alaaji Abo Mbakke mi nga xam ni mooy mooy almubaarak waaw mi nga xam ne nii moo taxaw toog taw bàyyi sëñ fan na xam ni mboolem njaboot gi fa boppam la ndax moom mooy ndeyam uh-huh. mooy baayam mooy sëñ fan ci moom waaye maxtar waaw eh, eh, kooku day moom waa day moom waaw. sëñ Cheikhoum mi fekkee naa ko ci mbooloo sëñ Basiru ni ko tey ay Serigne Fallou fii kon moom it ñëpp bàyyi nañ ko xel xanaa a Faye mu baax mi sama doomi nijaay mi dama am doomi nijaay ju nekk ci biir kër Serigne Cheikhoum mi nag waaw dëgg la dëgg la xam nga ñun day suñu euh, ñu siyaare ko ak njabootu Serigne bi yëpp waa kër Serigne bi yëpp itam euh, ñi nga xam ne ñu ci wanag wi di liggéey ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ah, eh, eh, yàlla yàlla yàggal seen taxawaay nangul leen seen liggéey li rek moo am solo bàyyi ku baax rek am solo maxtaar kon nga tënk ci daayira salaam ñu ñaan eh, fekke koy ati at ci barkeb Serigne Touba ak borom bis bi di Cheikh Modou Fadal Mbacké waaw di ñaan yàlla ñu fekke bis waaw li Cheikh Awa Balla Alaaji Falilu Cheikh Awa Baye Cheikh waaw Baye Cheikh Awa Balla nga moom it bis bi moom moom mooy borom bis bi sëñ Fallou gépp mu nga mooy borom bis bi waaw mm. mm. naa ko léegi bu baax xaar yàlla fam fati bentel ñu ko tardé mu ngok mbolem jëbatu seigne fallu gi talibé yi nan ko wajal hmm. ta xamné bisab seigne touba la ñepp ko mom hmm. bisab seigne touba moy bisab l'islam bisab l'islam moy bisab sayyiduna muhammad ndaysan jël wona maxtar tidiane eh. qadir layet ñessel seigne wona ñi maxtar sop nabi néna mi ngi wo mbolem khalifa diiné yi nak hmm. wa mi ngi tambalé ci fi ñu nekk ci dakar mam ablay tiawlay di wo cheikh ahmed tidiane maktoum di wo ñassène di wo ceneba di woo ñëpp yëpp la woo yëpp la woo. mu bisab lislaam la ko ñëpp bokk. xam naa waxtu wi moo jeex. waaw Kabiru caméraman Kabiru ak waa Russie. waaw ñu ngi ma nee nañu ma dara desul ñu ngi koy nuyu baax ak euh, Kebe ñi nekkoon ci caméra bi ak technique bi waa Russie ñu ngi siyaare elu bu baax a baax di siyaare képp ko xam jàppoon nga ci liggéey bi di ñaan yàlla ci barki Cheikh Modou Fadal mi ngi doon waxtaanee ak sama turandoo wu tedd ba yàlla na yàlla def euh, ci ñun dégg ak topp bi hurmati la ilaha illallah dina Muhammad ci weeru tedd yi xam ne weeru aj di ñi nga xam ni demoon nañ siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa ba dellu si yàlla na leen ajjan mabrura te tout demagul yàlla nga dem maxtaar sopp na yooyu tamit ñu lay ñaanal nga dem miraaran wa takraaran ci barke sa turado wa di siyaare la alaaji Seex mi Mbàkke Falilu daal bis bi rëy na am na solo euh, Europe Espagne France Amérique États-Unis fépp ñu ngi toog di ko déglu euh, Afrique gépp itam rawatina nag waa Bamako Bamako moom bu doon ah, lamb la su doon lamb la dama lay wax la bokk nag ah, lycée de Bamako kon nag Bamako Côte d'Ivoire waaye Bamako daal Bamako daal moom moom moom moom bu leen di nekk kon euh, mën nañu wax ni itam journée bi bu doon te ni ñetti xaaj la ñaari Bamako ko moom euh, ndax kenn demul baleen waa Bamako kon euh, Bamako Koura Badialan Lafia Bougou Kessa Bougou ma ba ñooñu yëpp ñu ngi leen di néggandiku ah. kon mu nekkoon seen émission pencum l'islam ak mbokkum talibé oustaz Cheikh Awa Balla Seck bu jot incha allah quinze fii ci LCS ñu doon ci waxtaane Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mi nga xam ni dañoo dëngumal bisam journée culturelle ci doomam ju màgg ju baax jooju Serigne Cheikh mi Mbacké Falilou taxawal ko ànd ak bokkam yépp yàlla na ko yàgg a taxawal ci barke Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Allah Allah Allah